sayidina muhammadin wal ali wa sahbihi dawina walil wali laqil lisaani waxlulan minhu lmuqad wacalhu dakiran wa shakiran abad wacal kalaami rachidan wa murshida nawir wa qalbi arshida anta allasi allamta luqmaana alxikam faliyahab bilmustafa xayra sham asalaamaaleykum wa taala wa mbokki daara ji waa at bi ñëpp ñoo leen di leen siyaar di beral nu yog siyaar waa daara xikmatul yawmi numéro 1 2 ak yëpp daara juy jot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 fi ñu yemoon démb mooy noonu la yonent bi àndeek saxaaba yi ñu dem suñ borom tabaraka wa taala may leen ndam lu yéeme ndam lu kawe kawe loo xam ne nii yéem na ñëpp waxul jaa alxaqu wa dahaqa albaatilu inna albaatila kaana saxuqan ci la ay caaxaan narmeeloo lislaam daal di jóg jullit ñi nag daal di gën a am pas-pas suñ borom tabaraka wa taala daal dimbala leen dimbal lu feeñ lu leer nañ ñi waaye nag lépp itam lañ ci mën a jàngee mooy payug yàlla yàlla ku mën a fay la yàlla boo koy lebal yow yëfi jaam ngay def waaye moom bu lay fay yëfi boroom jaam ñi lay moom lay jëfandikoo mënees na cee jàngate it ak déggoo ci seen biir doon doon benn ñoom ñëpp dénk seen kàddu kenn waaye lañ ko koy dénk moom it lépp teewul mu delloo leen ko ndax bëgg sa bopp ak ak bëgg lu baax dañoo bokkut moom moo leen gën a bëgg lu baax muy yonante bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ba tax na mushawara ba mu def ak ñoom rek loola luñ mën a jàngat la maanaam diisoo gam diisoo ak ñoom waaye bokk na ci xew ci xare ba it bañ àggee stratégie ba mu tëral ku ñuy wax xubaab ibnu munzir daf ne ko yow mi yàlla yónni lii eh, alquran eh, su borom moo la ko digal wala sa xalaat la mu ne ko suñu borom mu ne ko sama xalaat la mu ne ko nag nii de jàpp naa ne moo gën a jub yonent ne ko nañ te Xubaab ibnu Mansuur sax bokkutoon ci saxaaba yu mag yi nga xam ne nii dafa dafa soppi la yonante ba tëraloon lépp te bañ ko defee gis nga ndimbalul yàlla dafa ñëw nga gis élégance boobu nekkoon ci yonante bi sallallahu alayhi wa sallam ak li ma waxoon démb war gi mu war ànd ak am ñu bokk géléem ñu bëgg ko bàyyee mënu leen déedéet waaye pas-pas it feeñ na ca ndax nit ñu néewee noonu euh, dajeeg mbooloo mu baree noonu waajal seenub xeex ci fànn yëpp nag financièrement ak ci lépp euh, liñ ray ci ñoom xëy na bariwut ci lim bi juróom-ñaar fukk waaye nag nañ bàyyi xel ne sangi xureysin yëpp ci lañ bokk maanaam ña taxoon xureysin daan rëy rëy lu ñëpp ci lañ des kon loolu pas-pas moo ko moo ko moo ko moo ko andi ak impact bi nga xam ne ni xare bi def na ko ci euh, ci ci ci ci ci yéefar yi maanaam taasir lim jeexital loolu itam lu ci lu ca lu ca lu ca am am solo la bu ko defee kon waa Badar daal ñoom kenn mënu leen a fay lu ñaanal leen te it ñooy ñi gën ci jullit ñi ndax euh, yonent bi sallallahu alayhi day wax ci xadiis boo xam ne nii dañoo wax ne euh, am na ku ñu wax xaatib ibnu abi baltaa dafa bokkoon ci Badar waaye bi yonent bi def fatxu màkka te bëggoon a bett sa yéefar yi dafa bind leetar moom yónnee ko as ndaw ngir mu leeral xibaar bi waa màkka ngir ñu aaral ko ak njabootam waaye suñu borom daal yónni Seydina Jibril mu xamal ko yonent bi ne ko li ngay nëbbu kat am na ku ko bëgg wax waa màkka yonent bi daal di yebal ay saxaaba ñaar ne leen xur sàng mu ngi fa da ngeen da daje jigéen leetar ba mu yor na ngeen ko nangu bañ dajeeg moom ne ko indi lettre bi nga yor mun leen yoruma dara ñu ne ko yonent bee ñu ko wax te du wax lu dul dëgg boo ko defut dañ lay fitnaal futti la ba nga set ca la daldi nag dindee ay lettam ak ay ak musóoram daal di génne lettre ba daal di wax na nag xaatib moo ko ko jox yonent boo woo xaatib ne ko loo ci jublu mu ne ko yow mi yàlla yónni day bu ma gaawtoo ndax ab jullit laa du moom naafiq waaye dama bëgg waa mag aaral ma samay doom rek loolu rek laa ci jublu Seydina Omar daal ne yow yonent bi bàyyil ma rey ko kii kat am naafiq la yonent bi ne ko laa yaa Omar innahu min ahli badar moom kat ci waa badar la bokk te képp ku bokk badar du dem safara dal ne yaa Omar wa maa yudrika la'alla Allaha qad ittala'a ala ahli badrin fa qaala ihmalu ma shi'tum faqad wajabat lakumul janna wa fi riwaaya faqad ghafartu lakum ndax xanaa yëgoon ne suñu borom dafa yërnu waa badar ba xool leen ne leen yéen dey def leen lu leen neex lu leen neex ma ngeen ko def waaye jéggal naa leen ba noppi it seen àjjana leer na kon ñooñu seen daraja fam àgg kenn xamu ko moo tax sunu waa ji moom di Sëriñ Tuubaa bokk gi mu ci bokk ak li dox diggam ak badar ci jamono ni mu baree ak yitteem ju kawe moo tax mu bokk ca wax ne kenn la ci ñoom waaye loolu lépp pas-pasam la pas-pas bu rëy dem ba àgg ci ne rafaan rafion fawqal kurama bi laftixaarin bi mu noon lam tarima waaye nag li ko waral moom mooy jomam moom tamit ak yitteem da ngay seet sëñ Tuubaa bu fekkee woon badar ci zahir ci misaal rek maanaam bu fa nekkoon yor gànnaayam ànd ak ñoom na naka lay def koo xam ne ni moom kenn la ànd ak noon yu ëpp mooyee noonu yooyee doon kenn àndut ak keneen ñu koy teg métti yu méttee métti su borom téel ko ak ruwaam waaye lépp jomam ak yitteem tax euh, muñ ko ba waxuma sax waa badar waaye malaayka yelan doon wàllu si saa bu tollee ci ay diggante ñoo la suñu borom tabaaraka taala di yebal ci ñam wa fiihi moo iswarado xaliluhul mumajjado jibrilu nihma sanado fawqa jawaadi choysami kon képp koo xam ne ab taalibe nga war nga eh, yokk bu baax a baax eh, xalaat bu baax a baax ci waa ahlu badar seen yitte ak seen pas-pas ak seen passeef ba tax ma sëñ Tuubaa loolee bëgg lu baax gëm bëgg lu baax ak bëgg yàlla gëm bëgg yàlla da caa yóbbaale ak njabootam ba tax na ni fan yi lu baa badar niñ leen di fàttali ko njabootuk sëñ tubaa kenn gënu leen cee fees ci àdduna loolu lépp nag xam bëgguk sëñ tubaa ak sëñ tubaa màndal ci nàndal ci eh, ak njabootam ci bëgg yàlla ak bëgg yonent bi ak bëgg saxaaba yi ak bëgg lu baax loolu moo ko waral kon nag yàlla nañu ko sunu borom tabaaraka wa taala fayal te dool la ñoo def ñu di taalibeem ñoo ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di baalu àq yàlla na sunu borom dolli